tey ji nag bu ñu demee fële ci Gambie Gambien ya fa nekk ne nañ bëggatuñu faa gis sénégalais yi loolu dafa doon loo xam ne lu doy waar tax yéen kaay giir wàll fukk wàll fukk tey ji daal ci amal taxaw seetlu leneen itamit loo xam ne yéen gi xëy na ko fësal mooy kaddu yi nga xam ne Farba Senghor yëkkati na ko nee daal bu dee mu ngi daal saako ci Karim Meïssa Wade mu bañ a def xelam ne dafay jotaat ci boppi réew mi ndax ay mbir moom jeex noonu la ko yéen kaay gi di wàll fukk xëyee euh, fësalee euh, ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ba tey yéen a kaay gi di l'enquête dafa xëy dellu soit ci report élection locale yi lée euh, ñi nga xam ne di acteurs yi daanaka dañu jël mbir daal di koy xottite rek noonu la ko yéen gi xëy fësalee ku ci mel ne Cheikh Sarr moom bu ndi teewaloon fa majorité bi moom dafa jàpp ne ay élection daal kenn mënu ko organiser ci fii ak fukki weer ak benn moo tax ñu dàq mbir yi ba niki février ci atum 2022 mun Ndiaye Cissé bokk société civile yi ay kàddoom daal di benn yoon ngir kër ñu report ay élection noonu la ko yéenekaay gi di l'enquête xëyee fësale yéenekaay gi di le quotidien ci loolu la xëyee dellu waat euh, euh, yi euh, mi organisation élection yi majorité bi dafa jàpp kon ci weeru février ci atum waaye opposition bi ñoom nee nañu si yéenekaay gi di laas kon ci loolu la xëyee dellu si ñu wax ba tey ci wàllu élection élection yi l'évidence yi tamit dafa xëy dellu si waat ci report des élections locales eh, bi mooy ñett wala ñeenteel bi daanaka ñu koy ñu koy ñu koy daxaat eh, opposition bi nag yëkkati nañ seen kàddu kon di ñaaru taxawaayu nguur gi jëm ci fànn wuule eh, gi dellu si ci Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène ak militant parti Pastef yi ñu tegoon fële ci Bignona ñoom ñëpp bàyyi nañ leen ak bàyyim négandiku mi ngi ci yéen gi di l'évidence Euh, bu dee yéenekaay gi euh, di tribune dafa xëyee de xam di ñu xam lekk Idriss Seck ak jafe-jafe yi nga xam ni euh, mu ngi koy dund jamono ji ak ci ci partem bi di réew mi ndax lu matul benn semaine daanaka bëri na ci ay kàngam yoo xam ne ni du mooy ko ku ci mel ni Badara Gadiaga dem na Déthié Fall dem na Abdoul Aziz Diop Mbotia dem na ñoom ñëpp daal dëdd nañu Idriss Seck yéenekaay gi di la tribune xëy dellu si de démission xam daal daanaka ab virus la jamono ji ci biir parti bii di si waat ci décision bi nga xam ne nii yoon jël na ko daal di bàyyi ñett ñi euh, muy ku ci mel ni Guy Marius Sagna Assane Diouf ak ki nga xam moom moo di Clédor seen euh, yéenekaay gi ne ak euh, libération yi daal peut-être ak yaakaar mën naa dellu si waat noonu la ko yéenekaay gi di réew mi xëyee fësalee yéenekaay gi di Vox Populi xëyee dalal ki nga xam moom moo di Amadou Gueye membre la ci ci M2D bokk tamit ci ñoo lànk neen daal impossible kon Euh, kii di Karim Meïssa Wade ak kii di Khalifa Sall kon ñu daal di jot si ab euh, li ko waral nag euh, mu ngi ci yéen kaay di Vox Populi ku ci mel ni Yankhoba Diattara yéen kaay gi dalal na ko ci laaj ak tontu gi dox ci diggante ak suñu naatango yi moom daal xam ne daal parti mi fu mu toon dañoo fas yéene ànd ak Macky Sall gunge ko ba ci atum 2035 mi ngi ci yéen kaay gii di Vox Populi bu dee yéen kaay gii Sud Quotidien dafa xëyee dellu soir ci recours ngir jéem a yi nga xam moom la ñuy topp kii di Ousmane Sonko yéen kaay gi ne mi kon dañ ko delluwaat fële ci assemblée nationale eh, mi ngi ci yéenekaay gi di Sud Quotidien yéenekaay gi di Les Échos xëyee dellu soir ci élection locale yi waxe tamit ci juróo gi nga xam ne meeku nañ ko ci eh, mu dox ci acteurs yi ndax bu fekkente ne nguur gi daf ko jàpp ci atum 2022 opposition bi non aligné yi ba ci société civile ñoom nee nañu jàpp euh, ànduñu ci lu ni mel élection locale daal dañ ko war a amal ci atum euh, ba tax ndaje mi nga xam doon dañ ko amal ni ki démb ci ak pëcc xoolu mujjee noonu ko yéenekaay gi gi suusa euh, na ko waa ndax li nag bu amee moom njiite réew Macky Sall mënu cee teg loxoom gannaaw ba nga xam ne moom mii du Karim Meïssa Wade dañ koy toppee alal ju lewut uh, mu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar loolu nag jël nañ kàddu gi jox ko ci mais eh, jox jox ko maître Moussa Sarr moom amal na ci ab taxaw seetlu nee na su fekkente ne oto yi dafa nekk ci turu Karim Meïssa Wade kon bu baax Macky Sall am na sañ-sañu uh, daal di ci teg loxo waaye su fekkente ne oto yi nekkuñu ci turam waaye mu ngi ci turu Parti démocratique Sénégal uh, bu baax kon yoon mayu ko loolu noonu la ko yéenekaay gi di source xëyee fësalee bu dee yéen kaay gi direct news moom dafa xëyee dellu si waat amal euh, ab taxaw seetlu jëmale ko ci bël ba ca diwaanu Ndar dañ ko tàmbalee woon a gas euh, ñii nag di chinois fi mu toon takk nañ seen i bagage dem euh, li waral loolee yéen kaay gi xëyee ne daal di ci amal ab taxaw seetlu gannaaw bu mu jëlee kàddu gi jox ko kii di Ibrahim Seck bu tey libération dafa xëyee moom dellu si waat ci lu jëm ci mbiri Fatou Kiné Ndiaye mi nga xam ne ni eh, benn trafiquant de drogue bu kon ci Mouhamed Mbeng moo ko piégé jël ay bagaasam eh, dugal ci daanaka eh, lu ci toll ak 400 grammes ci assis teg nañ ko loxo nag jamono ji enquête bi kon mu ngi war ba fu mu toll ni sax ña nga xam daal ñoo bokk ci band bi ñi waa Oxygène tàmbali lañ leen teg loxo noonu la ko yéenekaay gi di Libération xëyee fësale bu dee yéenekaay gi di la Soleil dafa xëy dellu soit ci wàllu artisanat Macky Sall yéenam ak bëgg-bëggam mooy amal ab projet jëm formalisation lañ ko war a